DBT TV. DBT TV. DBT TV. DBT TV. DBT TV. DBT TV den ko seetaan parce que lu am njëriñ. Cheikh Mbacke Diop. Mouhamed Ndiaye. Sëñ Mbacke Sarr. seen xarit Mame Diarra. kon seen télévision DBT TV dana ànd ak yéen ci émission yu am solo. seen xarit Ababacar Mbour coordonnateur collectif ànd sàmm jikko yi moo di woo ci ñu DBT ñu daaray borom Touba mooy suñu chaîne bi nga xam ni moom la ñu ñoo ngi leen ci ñu def ko suñu ñoo ngi ci DBT li ngeen mënoon rek yàlla ngeen mën lu ko xop sa teel bi gën gën yàlla na ji jiitu teel farage والتسلم في أبد taxawal na fi loo xam ne daal maanaam lépp luy jullit mën na fee jaar rawatina lépp luy kër Sëriñ Tuubaa kon nag loolu wax dëgg yàlla ñu ngi ko ci ñaanal yal na barkeel ñu ngi ko ci ñaanal li mu ci bëgg li mu ci wut yal na ko ci yàlla defal loolu daaray daaray borom Tuubaa lu tudd waaye wax dëgg yàlla ñépp ci bokk daaray borom Tuubaa moom kuy jullit ca nga DBT TV télé bi tàqale dëgg ak nekk